salaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah rahmaani rahim laa wa la quwata illa billah Ya xayu ya khayyum ma sal jalal wal ikram eh, alaikum wa rahmatullah alaikum chers téléspectateurs alaikum le monde de la lutte de nous les amateurs les promoteurs les lutteurs en activité les anciens lutteurs euh, le monde de la lutte bàyyi ñu C'est une émission nag fàttaliku euh, dañ ko xawoon a pause mais desuwaat nañu euh, fan yi waaw numéro bi sax maa ngi koy xaw a mais yaakaar naa 18e la wala 19e numéro euh, donc tey dañu bëgg a wax rek euh, incha ci la saison 2008 2009. saison 2008 2009 concernant la lutte simple lamb ji mu ngi le dimanche 16 août 2009 la lamb ji tëjoon promoteur yi nga xamante ne jotoon nañu tëgg journée à journée entre arène Adrien Senghor terrain Galgui. franchement nous organisons organisé 77 journées sur les 89 parce que normalement 89 journées sont les 89 disponibles 77 journées nous avons eu a euh, total le bi nga le promoteur de l'investissement investir sur les 77 journées euh, C'était une somme de 48 millions 984 989 000 francs 48 989 000 francs CFA nous avons investi sur les 77 les 77 journées euh, donc euh, saison boobu liñ ci remarqué nag le euh, premier rapport de la presse bi nga été le 31 mai 2009 au arènes Adrien de Krayov. Nous avons suñu lamb 31 ah, mai 2009 euh, majorité journée journées, bo xolé presque biir Adrien Adrien Senghor la euh, Adrien Adrien rek euh, en personne 66 journées 66 journées donc 11 journées nous sommes au terrain gaal donc Adam Diouf L'enfant de Niodane moom la le meilleur lutteur pour la saison 2007 2008. xam nga ci saison 2008 2009 lañ nekkone mais lolu ben rappel bi ñu saison 2007 2008. Adama Diouf l'enfant de Niodiane moom euh, le meilleur lutteur. Louis Chor, euh, ñu nommé woon ko Louis Chor était la vedette de la lutte simple aux arènes André Senghor de Grand Yoff. Euh, terrain galgué pour la saison pour la saison écoulée même saison bi nga xamante ne 2007 2008 aussi lui Chor moo vedette bi moo nekkoon mbër nga xamante ne en vogue donc, euh, Bo l'enfant de Marloch, euh, en ce moment-là, il avait 21 ans, euh, sur 1m80, sur 1m80 pour 87 kg. Donc, 87 kg, nek la vedette, Bo Kholé, tay, poids léger, nga xamantene, eh, ñoo nek au top yépp, ku ci nek presque li comme manque leen manqué 100 kg bariwul. Donc, kon franchement, euh, balance bi nga ngi koy joy de côté, mais nak amna mbeur yu poids léger yo xamantene, euh, jot na pour ñu déclencher le poids lourd parce que poids lourd a commencé am carence mbër a commencé à ay mbëru poids lourd donc jot pour certains poids lourds dugg ci être certains poids léger poids lourd euh, donc euh, il a été aussi meilleur lutteur de la saison 2008-2009 Mom Luy il a été le meilleur lutteur de la saison 2008-2009 nombre de lutteurs yi nga xamante Le nombre total de lutteurs qui sont engagés pendant les 77 journées, euh, selon les responsables de l'association Adrien Senghor de Grand était une somme de euh, 2142 litres. 2142 litres. maanaam mbër yi nga xamante ne ñoo jotoon a ci biir 77 journées yep juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñaar yi ñu ngi toll ci ñaari junni ak téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ak ñeent fukk ak ñaar 242 participants donc pour Grand seulement Grand Yoff kese rek.

Je revenir ci mais ce que bëgg wax c'est que les 77 journées sur les 89 journées disponibles 99 journées sont disponibles pour la saison 2008 2009 77 journées lañ ci jotoon actuellement 5 dernières années nous li nga a 23 journées 24 journées 18 journées maximum donc pour nous 30 journées au niveau de Dakar c'est très 30 journées pour nous am pour am donc kon est le problème quel est le problème ba nga xamante nombre de journées wàññeeku na parce que boo xoolee da samedi da doon tëgg ak dimanche parce que boo xoolee tous les samedis tous les dimanches da doon tëgg loolu moo une journée du bëri mais promoteurs yi ñemetu ñu samedi. samedi y a certains promoteurs sax ont xamante pour ñu dimanche rek problème la waxatuma la nag le samedi parce que samedi mom saison bi nga xamantene mo moo ni mu la saison 2023 2024 parce que ben journée mo jotoon am ci ben samedi ben samedi jot kasse mo jotoon teug

ken nak ndax amatul parce que lolu yëpp na ci nekk ci wéy la ci tëgami la ci bëre bi la am ci lan la lolu nak dama fay un point d'interrogation de di laaj internet yi nga xam suivre TV ñu wax ñu lan mo tax les anciens lutteurs les anciens amateurs C'est ñu lamb léegi ak lan mo waral journée bu baax sax parce que 77 journées 89 journées 50 quelques journées tey mënatoo am sax 30 journées quel est le problème quel est le problème Moi, je ne sais pas exactement le problème où là où se situe le problème xawma problème bi fan la nek té franchement bëggoon na yeen yi nga xamantene yeen ne sétane seetaan Bineelaan TV à travers l'internet internet ngeen wax ma ci euh commentaire yi lan moo tax ba loolu manqué léegi lan moo lan moo waral lolu un point d' la fay teg. et franchement seen émission fàttaliku la won di ñaan nak les internautes ñi nga xamantene ñu ngi suivre Bineelaan TV à travers l'internet di wax un grand merci pour ñu abonné ñu abonné aussi. ñu ngi leen di ñaan ñu abonné rek parce que abonnement bobu ñoo ñu gungé moy neexal émission yi moy xorom bi ci biir cin bi franchement togg bu amul donc abonnement yoyu dana ñu neex lool. di leen wax na bu leen abonné ba aussi notification ngeen partager vidéo parce que partage vous dina tax ñu jot ndax affaire bi eh, di leen jox numéro